voilà ñu ci ëpp c'est des famille démunies euh, comme ni ma ko waxee c'est c'est euh, on fait de la prévention maanaam dañuy artu ñenn ñi ñun ñoo ñun suñu bopp ñoo leen di jëli parce que xam nga nit dañuy dégg enfant de la rui rek ñu globaliser mais ci biir enfant de la rue dafa am ay catégories mm. bon ki nga xam ne mooy li ñu mën a tuddee carrément enfant de la rue mooy koo xam ne mu ngi ci mbedd bi xamuñu fuy ay fu ay waajuram nekk euh, amul benn attache familiale mhm. nekkul sax ci goxam voilà kooku noonu mun nañ considérer que enfant de la rue léegi nag am na yeneen xale yoo xam ne dañ leen wax enfant situation de rue mhm. euh, ñi nga xam ne par exemple xale bi bu génnee këram matin mhm. balaa mu faa dugat guddi nekkul école nekkul daara nekkul nekkul di liggéey nekkul ci foo xam ne daal nit day day erré rek di wër. kooku am na kër. Mhm. mais situation bi muy dund presque moo xale yi ne xale xale bi nekk ci mbedd bi dañoo ñoo yem. Mhm. léegi ñun on intervient ci dans le cadre école bi ci prévention bi dañuy dem gis xale boobu fexe xam fu mu dëkk euh, dem waxtaan ak ay waajuram pour mun a jël xale bi ci école bi bañ xale bi mujjee doon. Mhm. xale euh, xale xale xale mbedd donc. boobu am na catégorie xale yooyu nga xam ne ñu ngi école ba am aussi xale yi nga xam ne seen waajur bëgg nañu xale bi nekk ci école ñu ciy jéem lu ñu mën waaye seen loxo jotul ginnaaw. voilà ngi aussi dañ leen di dañ leen di jege euh, parent bi bu ñëwee ñu waxtaan ak moom. mu xool ci as tuut li mu li li li mu li mu yor lan la ci mën a euh, joxe. pour pour euh, jàngum xale bi ndax aussi. ay enseignants nga la ñu engagé et cetera et cetera. et dafa laaj enseignants yooyu noonu bénévole la dañ leen di fay. mun nañ ko tuddee sax bénévolat parce que dañ leen di fay jànn daanaka motul dara te liñ leen di jox noonu weer bu dee xam nga Sénégal moom pour nga def fi bénévolat 100 pour cent dafa xaw compliqué. ndax boo xëyee gàddu sa saak di dem rek ñu ne kii day liggéey rek am na ay yaakaar yu nekk sa kaw. am na ay charges yu nekk sa kaw. Mm. day compliqué déjà pour nga ñu ne nit ki day def cent pour cent bénévolat bon gisaguma ñu ko fiy def ñu bëri. li leen fay fu muy fu muy jógee. voilà euh, ni ma ko ni ma ko waxee sànq dañu am ay catégorie xale xale yi nga xam ne ñun ñoo leen récupérer ci mbedd bi yóbbu leen centre ba ñooñu école ba li ñuy li ñuy jàngee du ñu fay dara. Hmm. xale yi nga xam ne ñun ñoo leen fekk ñuy traîner ci mbedd bi ragal ñu mujjee doon ay ay doomu ay enfants de la rue. Euh, bu ñu leen récupérer ànd leen fekk waxtaan nañu ak seen i waajur ñooñu tam bi ñu fay dara ñu tuddee leen les cas sociaux. Mm-hmm. léegi moo am beneen catégorie bi nga xam ne dans les cas sociaux ñi nga xam ne seen parent yi bëgg nañu ñu jàng mais peut seen moyen tollul yenn toll yi ñooñu dañu leen di mun nañu waxtaan ak parent bi mu xool diggante cinq 5000 voilà une euh, scolarité bu buy évoluer 5000 6000 mille ñenn yi ba 10 000 mm-hmm. am nag. troisième quatrième catégorie xale yi nga xam ne ñoom ñooy fay scolarité normal bi muy treize mille voilà ci loolu noonu ñuy dagale ci loolu lañuy lañuy lañuy lañuy lañuy voilà la ñuy fay enseignant yi ak affaire de mel euh, ban ban âge est que am na catégorie d'âge boo xamante ne boobu parce que lim fi catégorie xale ñoo xam ne ñu situation ñoo xam ñu ngi dans la rue wala xam seen même bien que am ay parents identifiés sax mais ñu ngi leen mais est-ce que am na âge par exemple bo ñun euh, suñu centre d'accueil bi euh, vingt cinq pensionnaires lañ mën a lañ mën a jël euh, dañoo cible aussi benn tranche d'âge euh, parce que ci mbedd bi di nga fa fekk ay ay xale carrément. Mm-hmm. fekk fa ay jeunes fekk fa ay mag. Mm-hmm. comme ni mu la ko waxee au début. ci liggéey bi mun nga wax enfant adolescent ak ak adulte. voilà très bien. très bien donc ñooñu ngay fekk ci mbedd bi. Mm-hmm. léegi nag. Euh, au début comme ni ma ko waxee dañ doon gën a liggéey ak mag ñi mais bu ñu demee ba ci biiraa gis nañu ni mag ñi xëy na pour ñenn ñi sopp leen day jafe de même bu fekkee bàyyi ñu leen. dañuy de mhm. continuer def ak ñoom activité mais xale bi nga xam ne moom moo gën a vulnérable. Mhm. kooku mooy mooy suñu cible. donc mën nga voilà mën nga ko changer. mun mhm. nga ko soppi. mun euh, nga ko utalaat dëkkuwaay boo xam ne. Euh, ëllëg mun na do te am nañ ci ay cas xam naa dinañ ci ñëw bu si kaname. Mm-hmm. ñoo xam ne vraiment ñoom bokk nañ ci ñu gën a encouragé ñu continuer ci liggéey bi parce que leen jëlee ci mbedd bi ba tey ñu doon ñu doon dara. Mm. donc euh, tranche d'âge bi nag mooy euh, huit ans ba généralement treize quatorze ba quinze ans. waaw ñun ñooy ñooñu catégorie googu. Ah, dem na ba quinze ans. parfois da ngay. ba quinze ans à la limite su fekkee gis nañu ni xale bi. il est encore récupérable. ok ba ans sax mën nañ ko jël.